ou def lu baax ñu def la justice sénégalaise a dit le droit Nous ngi féliciter tamit les avocats de Bougane gueydani parce que nous nous déggee le procureur on a franchement eu mal pour notre pays parce que procureur dafa def une plaidoirie ken est-ce que dicté le donne récité wala ken xamul est-ce que le donne wax ay euh, wax yu d'une autre planète parce que le Bougane def ñëpp a ko gis ñëpp ci teg seen bët suba nag Inshallah, nous allons commencer suñu campagne am nañ retard bu mag a mag a mag comme nu ngeen ko xamee retard bi c'est dû d'abord à la prise d'otage Bougane Gueye dani mais retard bi tamit c'était aussi dû à l'attaque contre le siège de Sàmm Sàmm euh, Sa Kàddu daanaka lépp lu ñu dajale woon ci ay ci ay t-shirt ci ay spécimen taal nañ lépp wante yàlla ci mbaaxam may nañu as tout ndax ëllëg ñu mën a commencer fii biir Tambacounda def commune bi ak def département bi et puis commencer nag enchaîner ak suñu campagne di sàkku tamit ci mbokk yi nous bàyyi la coalition sàmm sa le 17 novembre ñuy avons ci askanu Sénégal ñu sànjil seen coalition euh, sàmm sa pour une assemblée de rupture mais il faut insister Moi, sénégalais si nous voulons président de la république sénégalais parce que faut mu que ne président de la république c'est un président qui a dafa toogagul bu baax su ngeen amee su président de la république vous ngeen voter la coalition sàmm sa parce que ñun lu ñu tax a yóbbu assemblée nationale mooy góorgóorlu ba les institutions du Sénégal mën fonctionner normalement di gërëm ñëpp di sant ñëpp. jërë ngeen jërëjëf monsieur le maire ginnaaw bu ñu libéré Bougane euh, léegi da ngeen di continuer def campagne bay day dem. non dañuy des tey